bokk nekkal ñëpp di julli ci yàlla yëpp di julli ci yàlla yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla nee eh, ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla nañ ko dund seen ak ci jàmm yàlla nañu ko dund seen ak ci jàmm ba dellu si waat ci jàmm ba dellu si waat ci jàmm ci barke yonent bi sallallahu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ga nee na julli gi la incha allahu incha allahu moo xutba bi moo xutba bi du yàgg du yàgg ndax xam na ni ndax xam na ni tabaski tabaski a kori kɛ a kori kɛ ɲaami bɔ ko ne ɲaami bɔ ko la inshallah ne inshallah taala jule bulu jule banofi daani xutba suñu noppe suñu noppe daani lotal gàtt bi daani lotal gàtt bi yeewu ñëpp ne daani yeewu ñëpp li tax ñu wax suñu lottale yu gàtt yéew yi ñëpp. nee li tax ñu ni suñu lottale yu gàtt bi yéew yi ñëpp. daanaka ren di wul. tànka imaam ren di wul. ku ren bi ku ren bi. amul mbir. amul mbir. am nga lu lew ci yow. nee am nga nag lu lew ci yow. waaye amoo tabaski. dinañu bàyyi xel lépp incha allah. nee dinañu bàyyi xel lépp incha allahu taala. imam Mansour Dia ne lu imam Mansour Dia imam Cheikh imam Cheikh muy sëriñ Cheikh Dia Kane nuyu sëriñ Cheikh Malick Tidiane Kane ak ñi ñu àndal yëpp ak ñi ñu àndal yëpp yàlla yàlla dolli lépp jàmm yàlla yàlla dolli lépp jàmm ñaari rakka la ñaari rakka la rakka bu njëkk bi rakka bu njëkk bi juróom ñaari kabbaar juróom ñaari kabbaar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 والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله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 السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أنفسكم قبل شغلكم وحياتكم قبل موتكم واشكروا الله دوما على نعمه عليكم وتذكروا قول ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ibadallah jaam yàlla yi ginnaaw bi sant borom bi wa taala ginnaaw bi ñu àndoon ak àndaat ak yéen wa taala àndoon nañu daaw ci waxtu wii ci bërëb bii ci bis bii ñu àndoon sant yàlla ñaanoon yàlla mu may ñu ñu fekke ren jaam yàlla yi yàlla ma yaat nañu ñu fekke tey te leer nañu ñi fekke jaamu yàlla yu baax jaamu yàlla yu wóor wala jaamu yàlla ba yàlla nangu ko taxul ñu fekke ko yàlla la soob ñu fekke waat tey kon ñu ngi ñaan subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla nangul lañu ko santoon waaye ñu delluwaat ànd ak yéen wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu ñaan yàlla yàlla nañu ko yàgg ko fekk jàmm yàlla yu bis bis la moo xamante bisu feet la bis la mu rëy ci diine waaye bis la moo xamante bisu mbégte la waaye bisu sant yàlla la ci xutba ñu ngi ciy dénk sunu bopp di ci dénk jaam yàlla yépp ñu àndandoo ragal borom bi subhaanahu wa taala muy ittaqullaha rabbakum wa sallu xamsakum wa suumu shahrakum wa addu zakata amwalikum jaam yàlla ñu ngi dénk sunu bopp ñu delluwaat ragal yàlla ndax lan yanaala llaahu luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum jaam yàlla yi ñépp dégg nañu ko mooy xar yi ñu bàyyi ci kër yi xar yi ñuy ci jumaa yi yàlla nee na yàpp weeg dara soxal ma si li ma ci soxal mooy reconnaissance mooy ragal yàlla bi nga ni di ko ci jële kon mbokk yi lan ciy jëlee ci ragal yàlla mooy ab yonent moom la waroon a tër ab yonent moom la ñu waroon a rendi ci tey jii doomu aadama la ñu waroon a jël tër ko yàlla wutalee ko xar waaye ngir lan jàngalee ci ne xool leen ni su doon yaay tëdd fii say xel dina dem ci leneen wala tey jii doo fekke lii su boobaa nga jaare fa jële fa ragal yàlla yàlla ñu ko yàlla yombalal jaami yàlla yi ci biir xutba bi dañu ñëw di laaj mooy yaa man turiduuna falaa fi dunyaakum wa uxratikum mooy suñu bëggee nooflaay àdduna bëgg nooflaay alaxira di ni dafa am ay chart yoo ay mbir yoo xamante ni suñu bëggee nooflaayu àdduna bëgg nooflaayu alaxira ci la war a dox daraja ñu ne alaykum bi imtisaali awaamiri rabbikum soo bëggee am nooflaayu àdduna am nooflaayu alaaxira jaam yàlla yi mooy da ngaa war a temm dox ci li nga xamante ni moom la borom bi subhaanahu wa taala digle dama bëgg a noppalu àdduna am ku ma moom am ku moom àdduna ñu ne la soo bëggee noppalu ci àdduna ki la moom moom àdduna bind la bind àdduna indi la fi bàyyi la fi ñi fi jóge mu jële fi te loo fi yànk yànk dana fi jële ñu ne la soo bëggee noppalu jëlal sa mbir nga demmoo topp borom bi subhaanahu wa taala yàlla ñu ko yàlla yokkalal beneen bi mu ne mooy soo bëggee tamit noppalu ci àdduna bëgg feex alaaxira mooy na nga looy julli ci sayyiduna muhammad mbokk yi julli ci mooy jaamu yàlla bi nga xamante ni yàlla daf koo def ba pare doog koo digle yàlla da koo def ba noppi doog koo digle mooy yàlla daal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu alayhi wa sallimu taslima mooy yàlla ak malaakaam julli nañu ci sayyiduna muhammad mu ne ee eh, yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm julli leen te salmal ci moom ayuha almuslimun alyawma yawmu iidikum wa faraxatikum albisu ajmala thiyabikum waqsuru alfarxata ala wujuhi min xawlakum silu arxamakum wa jiraanikum waqiru kibaarakum warxamu sigaarakum taahadu على زيارة مرضاكم وتصدقوا على فقرائكم واحفظوا ألسنتكم ولا تنسوا الدعاء دوما لموتاكم وبالمعروف والإحسان عاشروا أزواجكم وتذكروا قول ربكم jàmm yàlla yi bisu tey bii bis la moo xamante ni bisu mbégte la dañu ne bis la boo ni sañse leen seeni yër seeni yére yu taaru ngir ngeen taaralee ko islaam waaye bis la boo xamante ni na ngeen wesaare mbégte ku daan dem sa kër am noo daan comporté woo ñoom ñu ne bisu tey bii soo demee ngal la na nga ubbi mbégte na nga ubbi jàmm ba say njaboot mën a xool ne ah sunu waajur de tey daa changé wala sunu waajur de tey jii lu mu daan bëgg rek tey jii gën na koo bëgg ne bis bii bis la boo xamante ni nañu jokk mbokk ci lan ci dëkkandoo yi nañu jokk mbokk ci biir mbokk bi waaye bis la boo xamante ni nee na nañu jël respect gën koo renouveler nañu gën a joxaat cër mag ñi ku am mag moo am ci biir koñ wala waajur wi nga xam ci biir kër gi. mooy mag nee na bisu tey jii na nga a feeñalaat wegeel ak teraanga jëmale ko ci nga xamante ni ñooy waajur yi mag ñi ñu ne bis la moo ni tamit mbokk yi nañu yëram ndaw ñi ci bisu tey mooy ki yàlla dénk ci wërsëgam xale bi ñëw ne la ah man dañ la yoon laay ut nga génne sa wërsëg teralee xale bi ngir xoole ko bëtu yërmande bis la boo xamante ni mooy nañ ci beesanaat kullare ci ñan dem ziyaar ñi nga xamante ni dañoo tawat nee na bis la boo xamante ni tamit bëgg nañ waaye bis la boo xamante ni bëgg ñu wattu ci sunuy jam yàlla yi réew mii di Sénégal wax naa ni julli yi bëri nañu fi jàkka yi bëri nañu di roy lu baax bëri na ci réew mi waaye war nañoo dox ci benn mbir mooy wattu sunuy làmmiñ Sénégal mooy réew moo xamante ni dañuy ubbi tàntantam ci télévision bi ngir lan ban xalaat nga am nga wax ko ci loo xamante ni yow sa xalaat loola fekke woo ko xamoo ca yëgoo ca waxuñu la ca kenn néewu la ca kenn dénku la ca dañu naan information am na ñu woo jullit yëpp ne leen wax leen seen xalaat lu la neex nga wax ko teg ko ci duru jullit lu la neex nga wax ko teg ko ci deru gor jamono di dox jamono di dox ba nga xëy daal ni ah damaa juumoon wala dama ko doon wax contexte moo taxoon ma doon wax contexte moo taxoon ma ko doon xas wala dañoo nekkoon ci langue politique wala dañoo nekkoon ci langue xëccoo wala dañoo nekkoon ci langue dëkkandoo wala nangam ngir rek wala sa këram famiyam lu bon loo xam ci moom wax ñu fu ñu ko jëmee nañu def live ci tiktok bi nañu def live ci instagram bi nañu def direct ci facebook bi nañu def direct ci youtube bi jël lu ñaaw yàq ko ci deru gor loo xamante ni ba muy am su dee jaam la digganteem la ak boroomam yow nga ñëw génne ko ci kaw pénc bi ngir lan contexte politique ngir lan contexte religieux ngir lan maag moom ñoo bokk koñ bi am na tur buñ koy woowee wala am na cër buñ ko jox xaaral ma wan leen ni kenn ko ci saa war nga xoolaat yow sikki yi nekk ci yow su ko yàlla génne woon ba ñëpp gis ko est-ce koo nuyu dooti na la fay damay laaj Maodo mi ne naa seeti sikku Oustaz Mouhamad Faye wala Mansour Dia wala Cheikh Kane wala Hadj Malick wala keneen mani suba solee sama di ko def man Maodo sikki yi ma yàlla xamal su ko génne woon kenn dootu su ma nuyoon nit du ma fay may gëm li may wax kon est-ce que samay sikk waru maa doy ñu ne kon bis la boo xamante ni dañ ci war a wattu suñuy làmmiñ jàmm yàlla yi bis la boo xamante ni xutba bi ñu ci wax ayyuhal aba ahrisu ala tarbiyati abnaikum وبناتكم كونوا لهم قدوة حسنة لتروا ثمرة تربيتكم وأكثروا لهم بالدعاء بالصلاح لتزين حياتهم وحياتكم وأنتم أيها الأبناء ميت باي مساج بي لكم لن لا باي لن ما ور باي من أحرسوا na ngeen xër sawar leen def leen yitte ci lan yar seeni doom jamono bii bari na kuy génn ci biti daje nit da ngay jékki rek am kersa kersa booy am da ngay koo mën a jur wala koo mat sët ku la mat sët nga mat ko maam nga wax benn wax mu wax wax bu ñaaw saaga teg tuuti sa dara wala ngay wax ndaw di ko poosee mu naan la père téyal sa conseil loolu li koy war nag mooy tarbiya mooy yar bi juri war yar xale yi ci biir kër yi yar boobu dafa def nañu xamal xale yi ci biti ne ko man mii kuy sama moroom da gis ko ci biti xamal ne sa baay la sa ndey yi toog kuy moroomam da nga gis ko ci bisi ci biti xamal ni sa ndey la sa mag yi toog koo gis moroomam ci biti jàppal ni sa mat la te ku joxewul cër kenn du la jox cër soo ci yaree sa doom mag topp rak doom topp baay doom topp ndey ndey topp borom kër su boobaa ku génn ci biti koo gis loo ko nar a def di nga ne aa ah, bëgguma ku teg ñàkkee teggin sama wayjur su boobaa sa doom su génnee ci biti du te ñàkke teggin wayjuru jàpp beneen ba mooy doom yi ittaqu llaha fi walidikum wa atiuhum kama amara rabbikum falbirru bilwalidayni waajibun aleykum jaam yàlla yi bii nag bi mu waxee wéy juri bii bàyyi la doom loo xalaat ci li ma war a def ci saafi doom dina ko bàyyi li la sa digal sa borom digal man sa doom bu nga tax nga mooy sa digal bu kon mbokk yi maa ngi delluwaat di dénk sama bopp di dénk njaboot gi dañu joxat cër wuy sa baay amul ko ëpp soo demee ci sa sëriñ di jëli wér soo toogee lu mu lay mbaa ngi jébbalu ci moom ana sa ndey ana sa baay mbaa am nañu ndigal ci li nga war a def suñu amul soo amul seen ndigal ci saa si ñu ne la dellul nga wuti seen ndigal ndax yàlla yonent bi wayjur sëriñ doog a ñëw waaye yenn saa nga dégg doom bu dee ñeent fukki junni baayam toog di wuti xarum tabaski wala baayam toog di lijjanti facture courant mu naan ko noo mbeer mbat deux cent mille sama sas la wala dama koo bëgg a ziyaara sama sëriñ ca Tiwaawan wala ca Njaasaan wala ca Laayeen wala ca Tuuba te sa way jur toog sëriñ ba ngay dem diggalu la ko sa diggante ak sa way soo amee teralal sa way soo amee teralal sa way soo amee teralal sa way soo mënee dimbalil sa way bala ngay dimbali way jur keneen te foo dem toog ba xañ sa wayjur doom di fa joxe wayjur wax nga fekk doomam la teg ci wetam nan la su ma fi joge xoolal ci sama doom li ma amoon dénk naa ko kon demal sa baay dénk la mu yor te ngeen àndandoo ci rafetal ñu ngi ñaan yàlla yal nañu ko yàlla yobbal alhamdulillah allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi wa asila alhamdulillahi mu'inul jam'i wal ayat wa jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al miyad ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم اللهم تقبل من الحجاج حجهم ولا تحرمنا يا ربنا مما اعطيتهم واعدهم الى اهلهم سالمين بالاجر غانمين اللهم اصلح ما بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأسماعنا وبأرضنا وأبصارنا إنك أنت الرحيم اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا